asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 30 avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey fa mu xëy ñëw wala ka xëy tey ñëw di ca wax mooy Thierno Gueye ma nga xam ne mooy yore bagage si Balla Gaye numéro 2 ci wàllum ay guru guru daal ci wàllum sëriñ wala boog moom mooy yore wàllum mistigam Thierno nag daa mel ni daal booy ñang la xëy tey di ko piis ndax nag li am ba des daal ceer da daa mel ni mu ngay dànkaafu nee na daal am na ay littër yoo xam ne nii wala ay mbër yoo xam ne nii Thierno na yàkkamti naa bis ñëw Balla Gaye de jàpp leen lapp leen wala mu wal leen boog ba ñu mel ni tiga dege loolu daal la Thierno wax mu mel ni ki nag wax ja yëglikaay bi daa jàpp ne loolu moom ku mel ni Boy Niang ak ñu mel ni ki ñoomu ñoom ñoo ko moom mel ni ki daal Thierno tey xëy na wax lu mel ni ki noonu nee na ñoom sax li am dañuy nax seen bopp ñoom ñoo ñu yaakaar ne bala Gaye 2 dara dafaa nekkatul wala ba ba woon bërki démb ak bu tey nee nax nañu seen bopp juum nañu nee na képp ku ci jàkkaarloo ak moom nee na bu keroogee moom jàppal da nga gis loo xam ne nii moom wala di nga daj loo xam ne mburu du ko daj ci ab taal moo tax daal ceer tey xëy na mu ngay dànkaafu di wax ñeneen ñoo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom muy Bombardier yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne nii daal mooy bëgg-bëggam ci génn ci làmb ji dajeeg ñoo xam ne ñoom la bokk génération loolu yëglikaay bi ñëw ñëw na ci ki nga xam ne moo di Bombardier ñeneen ñoo xam ne tamit yëglikaay bi daa ñëw ci ñoom muy ka nga xam ne mooy guy gi bu géej a way ama neex bu tëngéej moo du anta bu Cees forza bu fas mu mel ni ki ñeent ñooñu nag sunu làmb jàpp na ne fii day boo sàgganee ku fi jukki da nga fi am combat boo xam ne daal combat de feu lay doon combat boo xam ne tàng jër-jër lay doon muy diggante ñeenti mbër yooyu nga xam ne tudd na leen keneen koo xam ne nag yëglikaay bi xëy na tey seq moom waxtaan muy Lamine Thiam Dogo di nekk fi nga xam ne mooy ci làmb ji nekk ci réew mi moom nag daal jàpp na ne làmb tey moom ak làmbi démb du benn ndax ne ne mbëri démb ya moom dañ doon bëre ngir honneur daan bëre ngir leneen ak leneen waaye daal jàpp ne làmb tey moom business moo ci ëpp daal mooy li nga xam ne nii moo ko lal loolu mooy ay waxam ci yëglekaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ñëw na tamit ci li nga xam ne ni moo di sunu làmb xamal na leen ni daal seen journal bi moom comme café suba teel rek soo xëyee foo jaar faw nga xéewlu ca door a mën a dem loolu mooy ay waxam waaye tamit digganteem ak ministère des sports ba ñu wax ne daf fay liggéey set wecc dana daal liggéeyu fa tey suba waxi noppi mataar ba nag jàpp na ne nitam la xaritam la boo xam ne ni daal yàgg na nañu lool mbirum Alioune Sarr itam laaj nañ ko ca waaye lam ca wax daal soriwut nee na li am ba des daal Alioune Sarr magum yàllam jëmm la kenn du ko wax la muy def ak la mu dul def nee moom bu fekkee war naa dem xam na su warta dem tamit xam na waaye moom lamin daal nee moom du moom moo koy wax ne ko bii ngay def wala baax keneen koo xam ne ni moom demuk Alioune Sarr fa nii waxoon na ca ba ba mu leer nañ na mu mel ni yëglikaay bi xëy na tey ñëwal di ci jamayke jam nag monteeti na beneen combat ca Gambie mu mel ni ki daal Gambie moom jam daa bëgg koo yëngal bu corona bi jeexee xam ne nii wala malien maara bokk ak ka nga xam ne mooy ama bu Serekunda daal loolu la jamaykee tëggati fa nga xam ne mooy ca Gambie mu mel ni kon daal bu corona bi jeexee jam moom jam la mu nar na naa métti waaye dañuy dem record record moom ca Alioune Sarr la xëy ñëw Alioune Sarr daal fa mu commencé jàppal ci Ablaye Makhtar Diop ba tey ci Matar ba ak dem gi ñu yaakaar ne war na ko koo dem ak ministre yoo xam ne jot naa jaar ci seen ay loxo jiite kuréel gi moo xam Faustin Diatta la ak nga xam ne moo di Malick Gakou Mbagnick ak yeneen ministre yoo xam ne yoroon nañ espoir réew mi moo tax yëglikaay bi daal jàpp na ko depuis booba ba tey la ko commencé ba tey fii nga xam ne nii fi lañ toll tey mu war a dem nag ci mois d' octobre kon daal coupe bi tey record da nga gis Alioune Sarr ci yaatoo yaatoo yaatu ak ña nga xam ne jot naa seq ak ñoom ñu yoroon ay ministère ci espoir réew mi te moom mu jiite làmb ji keneen koo xam ne moom yëglikaay ba daa ñëw ci moom muy père baabu père baabu nag wala basiru baabu boog di ab menace ne ci làmb ji jiite menace yi moom daal daa mel ni confinement am wala couvre-feu am kooram moom ni mu koy dundee ci wàllum yàpp daal neex na ndax moom la mu bëgg daal mooy yàpp woo xam ne du ànd ak diwlin maanaam daal mu mel ni kon daal daa mel ni kon moom jikkooy naar ji dugg na ko de yàpp woo xam ne dañ koy defar sans diwlin ay sa fay ndax yow mën ngaa defar yàpp boo xam ne diw du ko laal ba bu paree yes mas koo xewloo salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen ñi bu baax di leen ziar di leen jaajëfal eh, di leen baalu àq te di leen baal àq ci weeru koor gi ñu ne booba léegi nag eh, ñu ngi doog a moo tax eh, tey nag ñu ñëw ci revue bi daal di leen di baalu xam naa ni Babacar moom jot na ko def ba pare ma daal di dugg moom ci li nga xam ne ni mooy waxtaan Babacar nuyu naa da ngaa mel ni ko xiif de maa ngi lay fay sa baat bi wàcc na ak doole est-ce que yaa ngi woor yow hmm? damay laajte wala paatee tax mënu woor ah kon <laughs> waaw kon am na solo maa ngi lay nuyu ah. Hmm. Aïssa mbaa am nga jàmm. yàlla na jàmm yàgg. amiin ñu daal di dugg ci li nga xam ne nii mooy euh, waxtaan bi daal di dem euh, tey euh, sunu lamb fekk fa Thierno Gueye Thierno Gueye tamit ji ki nga xam ne ni mooy préparateur mystique bu Balla moom nag nee na daa yàqamte gis plan mu wàccaat ci làmb ji daal di bëre. jàpp ñenn ñi daal dóor leen dóor yu métti. parce dañoo foog ni <laughs> dara nekkatu fa. <laughs> Cher ñu koy nuyu di ko ziar ne na moom daal loolu lay yàqamti gis Balla wàccaat ci géew. Mhm. waaw loolu nag dafa naa ne amateur lamb yi sax gis yàqamti nañ Balla Gaye wàccaat ci làmb tey bëre parce que bokk na ci mbër yoo xam ne dañuy dundal làmb waaye nag comme ni mu ko xalaate moom wàcc jàpp ñeen ñi tëcc leen ba ñu nooy moom loolu la gis. Mhm. ah waaw loolu nag gis-gisam la bëgg-bëggam la et puis xam na mbërëm mhm. waaye itam làmb lépp ci ne ah. waaw lamb moom man nga yaakaar waa ji bu wàccee tëj ci gars yi mu wàcc tamit mbir mu passé a côté waaye lamb ba des daal mooy loolu mu wax moom xam naa ne ñàkkul am na fu mu ko jëmale waaw. ah sunu lamb nee na dafay def euh, clin d'œil ki nga xam ne ni mooy Boy Niang 2 de. clin mooy piis nii. Ah. xool nii xool bu ndaw ci bët. <laughs> <laughs> am na borom. waaw sunu làmb moom Boy Niang la ko moomale waaye dama naan ba tey loolu mën na nekk ah muy Boy Niang waaye itam bëri na adversaire yaa ngi fi ah pour Balla parce que Tapha a ngi fi seen combat dafa neex revanche dinaa mm-hmm. leen sax ci Instagram bi wala 2STV euh, bi ñuy waxtaan mu neex lool waaye tere nag dañoo war a bëri waat ñoom ñaar mm-hmm. diggante ma Gris Bordeaux tamit même chose waaw loo ci mën a dégg daal xam naa ne euh, Thier daal yàkkamti na mbërëm ñëwaat ngir mën a tëcc ñeeñee comme ni mu ko waxee mm-hmm. waaye nañu yónnee yàgg rek waaw waaw ñu yónni yàgg daal di dem seeti ki nga xam ne ni mooy bombardier moom nag tey suñu lamb dafa ñëw ci moom di wax est tasul yaakaaru ki nga xam ne ni mooy euh, rëg-rëg parce moom nee na combat bu mujj sañoon da koy bëri la ak ki nga xam ne ni euh, moom la bokkal génération mooy mbër yi nga xam ne ñoom la maase. waaw moom loolu la gis ah wala boog loolu la ñu suñu lamb jàngat par rapport ak sortie bu mu def fan yi ne moom ñu mu bëgg a bëreel mooy ñi mu bokkal génération ay Modou ay Balla Gaye mm-hmm. Gris Bordeaux wala Eumeu ak ñu mel ni ki noonu wala Tapha dama naan kon yaakaar ja mën naa mu tas ndax it ku ne mu ngi doon xaar diggante mag rëg-rëg bañ amoon yaakaar ne sax dina taxaw waaye li ci am solo daal mooy que ni làmba mel noonu garab ci kaw lay fekkantee mais xam naa ne rëg-rëg moom li may wax rek euh, di ko waxaat ni mu nekk ci làmb di ko dundee nii ku ko bañ ren itam déwén mën na am làmb dana leen boole waaw ñu jóge foofu dem fekkee liste bi nga xam ne tam suñu lamb dressé na ko maanaam ñoom euh, Forza ñoom euh, Modou Anta ama neex guy gi mbër yu demee ko noonu daal nee na ñoom seen biir ay combat yu neex mu fa nekk. waaw kàddu yooyu muy Forza muy Modou Anta muy ama neex muy guy mm. ah moom jàpp na ne ku fa am lu neex waaw war na mën a nekk foofa ku fa génne dara ñeent ñooñu moom boo leen boole ku ci ne nga boole ko comme war laaleel da nga am combat neex a ñaari combat mën na fa génn yu neex a neex sax. Mm. Mm. Babacar ba tey ñu des ci làmb bi ak actualité bi kii di caatuwaalu tamit ñëw daal di ñaanal Alioune Seye nga xam ne dañ ko suspendre 6 mois mu nag ñëw di ko baalul ak ki nga xam ne ni mooy CNG ba. waaw daa bëgg ñu jéggal ko wax na dëgg dompat ci sot la bokk waaw nit ku ne da ngay tooñ di juum te tooñ lu mu rëy rëy jéggal mi da koy puddal suñu papa Maxime Bargane da koy faral di wax mu koy nuyu di ko siyaar kon caatuwaal a def jéglul Alioune Seye nag dama naan mbir yi gën a yow Sénégal boo koy wër moom boo demee ci moom da nga taxaw ndax xam naa doo ko dégg ci coow doo ko na problème mu taxaw ci réglé ko dafa fekk ne nag àddina li ñuy wax rek moo weeru koor yi nu ne ñoo yem fekk ndog jotu rek jiwu weesagul tuddwee daal ñu ngi ñaan itam noonu ko kooku ñaane ñun noonu lañ koy ñaane ñu jéggal ko parce que nit ki ci li ngay def ci ngay juum ay sax mais boo juumee nangu ne da ngaa juum jéggalu waras na la mën a jéggal ko Babacar euh, ñu continuer ak ki nga xam ne ni mooy euh, Père Lamine Thiam Dogo moom tamit ñëw na ci sunu lamb bi daal di wax euh, ci li nga xam ne mooy actualité wax na ci Alioune Sarr ñu koy laajtee si si li nga xam ne mooy nga xam ne nag nee na lamb démb ak bu tey dafa wute trop. waaw Père Lamine Thiam ñu koy nuyu di ko siyaar loolu mu wax moom am na dëgg dañ koy dëggal lamb démb ak lamb tey du benn mais loolu mooy àddina àddina bi amoon jamono ji jamono yi 1980 ay sa ak ay 1800. ak jamonoy 2000 lii mën ta doon benn mbër yi duñu benn xalaat yi duñu benn dundin yi duñu benn ñun ñëpp ku ci ne am na nooy dunde tey noo xam ne sa wuy jur wala say maam daaw ñuy dunde muy yow muy man loolu mooy àddina làmb démb nag mbër yi dañ ko daan def parce que ñun li ñu xamoon ñun ñu dëkk ci kaw gi comme heure wu ngóob ni buñ góobee ba pare affaire yooyu lekk ñebe bu bés di bëree ci leer gi guddi sax lañ ko daan def bëree waa def ko fo di bëre di daanante loolu nag loolu mooy dem di dem dem ba benn moment mu nekk réalité ay écrit judd leen nekk di ñu organiser ko mu am ay kuréel ak lépp ku leen défendre sa gox xaalis ñëw tamit dugg ci biir mbër mi di gagné ay dizaine de millions di voyager di dem à l'étranger di ñëw yor ay visam am ay 4x4 ci ay immeuble am loolu mooy àddina parce que àddina muy tudde noonu yow mi tey ñaan nga yàlla ëllëg sa doom ak say sët am benn vie boo xam ne yow amoo kon ko te loolu force day am parce que àddina mooy doxee noonu. kon Père Lamine loolu mu wax moom dëgg dëgg dëgg pire la ndax bu yàggul dem naa ci benn mbër dugal na ma ci këram goo xam ne ni Aïssa Faye macha allah bu paree da nga gis lu doy doy waar. Mm-hmm. loolooy àddina yàlla na leen jik quoi. Mm-hmm. parce que mérito nañ ko tamit ñoom mbër yëpp ah. waaw ñëw ci Alioune Sarr. Mm-hmm. waaw Alioune itam comme lim ci wax ci toogam ak dem mu ne na mooy choisir moom la. mais moom amut lu koy wax ah wax na dëgg nag Alioune Sarr magum yàlla am jëmm la moom xam na dina dem wala du dem. waaw kon defe naa foofu la fa war a wax euh, nee na amul lu mu fay wax na bu ñu ko laajee nag moom da di acteuru làmb nekk porteur de voix ñu di ko dégg kon defe naa war nañ ci am xalaat mais xalaatam bu wax itam nag kenn du ci jëlee mm-hmm. du ko toogloo wala mun na ko demal moom mooy xalaatal boppam mm-hmm. kon ñu di foofu lañ ciy yem. foofu la ñuy euh, jógee daal dem fële ca record fekk ki nga xam ne mooy Abou Ndour moom it ak mu ñëw def euh, benn chronique ci li nga xam ne mooy fi Alioune Sarr nekkee ba léegi muy commencement bi ba tey yi nga xam ne départ am la doon la war a doon incha allah. waaw bëri nañu mu jaaral fii ay ministres yu mu fi jaaral ci wàllum liggéey ñu yoroon sport réew mi mën nañ jàpp ay Abdoulaye Makhtar Diop ay Faustin Diatta ay Mbagnick Ndiaye ay Bakar Dia. ndem si yàlla Issa Mbaye Samb ci ñu mujj xam ñun ak yeneen ministre yoo xam ne jaar nañ ci ay loxoom ay ñoom Malick Gakou bàyyi ko mu gérer làmb ba tey nag dem des si moog Matar Ba moo fi des ñu ne d' octobre la mbir may ja ab mbir xëy topp ama am solo defe naa ko ubbi tey journal bi kon boo xoolee da nga gis ministre bu ci ne la ko boolewoon ak moom la tax mu toog ak la taxoon mu bàyyi ko fi waaye dafa mel ni euh, damay jàpp ne rek am na lu mu defal làmb ba tax ñu doon ko fi bàyyi xëy na nag comme li may wax lépp moo mënta parfait rek waaye nag yàlla na yàlla def daal bu dem di am na dem ci jàmm ki ñëw itam ñëw ci jàmm yokk loo xam ne ni moom Alioune Sarr defu ko fi woon waaw. waaw Babacar ci loolu ñuy daal di jeexalee li nga xam ne ni mooy jàngat bi daal di tàgg ñi nga xam ne ni ñooy euh, seetaan. sa sa mbokku naar mais nga yaakaar ay Ramadan Abou Bassir Ba ah, ah. comme ah ko nag sama sama sama mbokk la Babacar ah, sama mbokk naar la parce que tamit eh, yaayam yaayam si boppam sugu fara la sant lépp ay benn la sama mbokk naar bi tam ñëw na ci li nga xam ne mooy kooram moom nag wax na li mu bëgg nee daal ndawal bu nooy la bëgg te du am diwlin noonu daal lay gérer kooram waaw loolu moom dama lay laaj yow tey maa lay posé question ndawal bu nooy bu amul diwlin nuñ koy toggi ay sa sa yaay naan. waaw dañ koy togg da ngay jël rek eh, ndawal bi rek dugal si cin bi rek daal di koy bërëg noonu ak graisse bi rek lépp def sa kii bi. sans su paree nañ ko mën a lekk. nooy nepp lay def Babacar. kon Basirou Babou moom nee na boobu la soxla boobu itam defe naa ñun ñi soxla nañ ko. Mm-hmm. ñi ñuy seetaan tamit defe naa war nañoo soxla loolu. Mm-hmm. yàq bu ñu bëriñ ci cin li nii Fall. <laughs> naari xam nañ lu neex de ndekete muy nuyu Asi ca Mauritanie Asi Diagne xam naa war na nga dañuy daal di tàggu ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal di nuyu bu baax sama borom kër sama sama xarit sama lépp. sama chéri sama lépp. di nuyu ah sa àdduna ak alaaxira kay mooy sama lépp di nuyu samay doom di leen ñaanal jàmm ak salaam ah. <laughs> <laughs> di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Leewtoo TV ak foo mun a nekk ci àddina di la ñaanal jàmm di la ñaanal yàlla musal la muccal la ci li nga xam ne nii moo lëmbee àddina te tamit euh, Babacar mm-hmm. may te tey joyeux anniversaire sama yaay di ko ñaanal gudd fan su ko fara dundal dundal dundal dundal dundal dundal dund saapé la yàlla may la gudd fan ak wér yaram parce que nag am na ci solo trop nga dund ba fekkee sa njëriñ njaboot gi yëpp sët yeeg sëtaat yëpp fekkee incha allah yàlla bu la dara bu ñu séddee dara si ginnaaw daal yàlla na la yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax su. amiin Aïssa Faye waaye man tamit comme ni nga ko waxee rek ah, ku ne comme Moussa amul séeri man itam ma nuyu sama séeri ah sama àddina sama lépp tanañ madame Diop maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal réussite ci njabootam te mu fekk lépp barke yonent bi sala wala ñu fekk lépp parce que itam jigéen ju baax la te jigéen ju ma muñal la te li may wax defe naa ñi ñu njëkk xam nañu ko kon yàlla na jàmmam yàgg di ko nuyu di nuyu ay mbokkam yëpp yaa ngi dégg ay waa kër yaayam waa kër papaam ak tout tamit li nga wax noonu ci mère Sougou dañ koy yàlla gudd fan ak wér yaram rek ndax euh, nit moom boo ko gisee surtout jigéen ju baax ci njabootam ngay xamee kii ni ku baax la wala déet te xëy na xaw ma leen bu baax xaw naa leen a xam ni tuuti rek mais moom gis naa ko benn yoon su ma juumale mais xam naa daal mag mu baax la yàlla na ko yàlla defal fan gudd defal ko wér-gu-yaram ba sax njariñu ay sëtam mu fekk waxuma ay doom mais ay sëtam njëriñ ñoom parti yi ngay boot yàlla na dem ba fekk seen njëriñ barke nabil Moustapha di ñaan yàlla corona bi jeex waaye tamit di jaajaat suñu état yi su Afrique nañu gën a bàyyi seen xel ci santé am na solo di ci investir ay sa fay région de Diourbel Thiès Louga région yi ne Sénégal yëpp ba ci département yi ku ci ne pour man état yi war nañ xeex ba nga am plateau médical boo xam ne ni bu méngoog jamono lay doon suñu médecins yi mën nañoo faj mën nañoo liggéey dañu bàyyi réew tubaab yi ñuy dem di faju ji yaa ngi dégg kon li des mooy ut matériel dama naan su matériel amoon sax xëy na yenn problème yi duñ ko am heure bii yaa ngi dégg di leen ñaanal yàlla nag réussite ñu nga ca ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak ñay composé mbir ma yëpp di wax daal corona bi yàlla na fi jóge ak jàmm ñu itam ñu gën a moytu bàyyi dem beeg dëkk bu bari bi waaw dina ci am solo. waaw waaw Kare am na ci solo ñu jox leen rendez-vous euh, lundi incha allah suba fête du travail la. Ah. le premier mai fête du travail la Babacar suba la fête xam nga man man dama dem man pour man chaque jour liggéey la man ay fête du travail ay waa non man ma yow kuy liggéey looy feetu ay sa. ay sa feet yàlla na yéex pour man àjjana la yàlla nañ fa yàlla yóbbu mais àddina bi amul feet. fii pour man soo xëyee da ca war a rek. Ah, man de loolu laa gëm moo gën a wóor di. waaw ba lundi incha allah di leen ñaanal fête du travail jàmm ak salaam. amiin.